wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi noo ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci sangu bindeef yépp muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di leen ziyaara muy bisu ajjuma fukki fan ak benn ci maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ci gàddaayu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di sof rek sunu kaddu ci kaddu yi nga xam ne jaar na fi ci fan yi jàll yëngu yi nga xam ne xew na ci réew mi te ñi fi jaar ci fan yi wax ci lu doy sëkk ñi fi jaar ci fan yi bayaan bi nga xam ne moom la kilifa gu tedd gi def ñu leeral ko saraa ko ba ñëpp xam ko loola doy na sëkk mi ngi tolloog ñi nga xam ne ñooy nooni lislaam fu nekk jaar nañu fa ngir noot lislaam wàllu koom-koom jaar nañu fa wàllu ngànnaay jaar nañu fa wàllu jàng ak jàngale ak yar jaar nañu fa wàllu communication jaar nañu ca ñoom daal fuñ xam jaar nañu fa ngir bëgg nappaaje lislaam lenn rek moo leen dese mooy pas-pasi lislaam yi ñu fexe ba nappaaje ko ba kenn dootu ko jàpp te nit ki su amul pas-pas nag su boobaa day yomba noot foo ko jaarloo mu jaar fa loo ko xolloo moom rek lay xool looloo tax ñu ñëw fekk yi nga xam dafa leer naññ ci alquran leer naññ ci sunna leer naññ ci mbindum sëriñ bi ñu bëgg koo nappaaje su ëllëgee nit ñi duñu am jomb jomb duñu am lu ñuy rus du ñu am lu ñuy ragal nit ki nag su amul lu muy jomb amut lu muy rus amul lu muy ragal su boobaa foo ko bëgg a jaarloo da nga ko fa mën a am ida lam fas fasna ma chita te loolu am na lu ko jiitu jigéen ñi nga xam ne ñooy genn wàllu àdduna ñoo ëpp sax ci àdduna ci ñoom lañ njëkk a jaar di wax ne dañu leen a noot di wax ne kenn joxu leen seeni àq di wax ne da a war a laxasaayu gembu fas yéenee bëre ba ñu teg leen seen place di wax ne seeni sañsañ ak seeni yelleef dañu leen ko xañ dañoo bëgg bu ñu juddoo ba ba ñuy dugg bàmmeel dañuy nekk ci ron kilifteef duñu moom seen bopp tax na ba la xew ci réewi tubaab yi di law di dugg ci réewi lislaam yi ñu wax ne jigéen sañ naa takk say maye boppam su ko mu takk su ko neexee tekki jigéen su bëggee tànkam diis mu diis waaye bu ko soobee tànkam du diis jigéen bu tànkam diisee te neexu ko su ko bëggee ayibal mën na ko ayibal ak nag yeneen ak yeneen yoo xam ne jataay bi da ko laajul moo tax tey ñu bëgg a ñëw leeral ne jigéen ñiñ doon wax ne na ngeen laxasaayu laaj seeni yelleef ba ko ko joxe yàgg na li lislaam jox sax moo ëpp ñoom li ñuy laaj ndaxte sunu borom subhanahu wa dafa teel a xamle ne jigéen ak góor ñoo bokk fu ñu soqi mu yaa yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida sunu maam aadama ak sunu maam awa sunu borom xamle ne dañoo juumoon ndax fa ak akala minha la wax waaye ba ñu demee ba seen xel delsi dañ ne qaala rabbana wa zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa na lanakunanna min alxaasirin kon jigéen ak góor yàgg nañoo ànd bu leen xelum doom aadama jàppee ba ñu juumit seen pas-pas tax ñu wëlbatike dellu ci yàlla tuubal yàlla jigéen mi ñuy wax ne joxuñ ko ay yelleefam ak àqam sunu borom nee na moo góor ñoo yem fa kanam yàlla ku ci def lu baax sunu borom fay la ko ku ci def ab safaan ci tuubootam da daje ak sunu borom wa yamal yaamal min alsaalihaati min dakarin aw unsa wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna aljannata wala yuzlamuuna naqira kon góor su defee lu baax wala jigéen def lu baax te pas-pas lal jëf ja su ëllëgee sunu borom dana ko teral ca àjjana te kenn du ko tooñ lu tool ni naqiir jigéen sunu sunu yonentu bu tedd bi nee na nit ku tedd rek mooy teral jigéen waaye ku sew rek mooy doyodil jigéen ma akraman nisaa illa karim wa na ahaanahunna la laim kon ku tedd rek moo koy teral waaye ku sew rek moo koy doyadil ñoom jigéen ñi suñ boroom uh, wax na ne bu dee sa waajur am na loo xam ne moo la war ci moom xadis nee na bu dee sab jigéen am na lu war ci moom bu dee soxna am na la war ci lu war ci moom bu dee doom am na lu war ci moom te defe naa ne jigéen joo gis rek faaw mu doon lenn ci yooyu benn muy saw wayjur wala nga war koo xool ba tub wayjur kooka alquran nee na wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana yàlla dafa dénk nit mu fonk ay wayjuram kon nag képp kuy say waajur da nga ko war a fonk képp koo xam ne bët boobu nga koy xoolit da nga ko war a fonk bu dee sab jigéen xadis ba nee na innama nisaau shaqaiqu rijal nee na jigéen ñi góor ñi ñooy seeni càmmiñ kon koo xam ne sab jigéen la da ko war a mat càmmiñ koo xam ne it mook sa sab jigéen ñooy ay nattangoo da nga ko war a xool batub càmmiñ di ko taxawu na càmmiñ war a taxawoo ab jigéenam bu dee soxna si nga dëkkoo moom it dafa am lu war ci moom ndax de ku tedd ka nee na ki gën ci waa këram moo gën ci yéen xayrukum xayrukum li li kon nit ki dafa war war a feexe ba bokk ca ña gën te ki gën ci wa waa waa këram moo gën ci yéen wa ana xayrukum li ahli man nag maa leen gën ndax maa gën ci sama waa kër kon gis nga bu dee way jur al nee na nanga ko teral xadis nee na aljannatu taxta aqdaamil ummahaat ajjana soo ko dee sàkku na nga ko sàkkoo ci sa waajur moo tax ku tedd ka daana fab kaalaam di ko lalal soxna xalimatu sadiya daana ko lalal tam ay bàjjanam ndax cër bi leen yàlla jox moom la leen di jox kon bu dee waajur teraanga ju rëy moo war sa digganteek moom bu dee ab sab jigéen teraanga ju rëy moo war sa diggante moom boo dee soxna itam teraanga ju rëy moo war sa diggante moom wax na sax ci ab xadis ne àdduna ay xéewal la ak wàccaay la ca gën nag ca wàccaay woowee mooy soxna su baax soo xam ne boo ko xoolee sa xol sedd soo ko wanee ginnaaw sam xel dal xayru mataa'i dunya al mar'atu saaliha in nazarta ilayha saratka wa in xibta anha xafidatka fi nafsi fi nafsiha wa fi malik koo xam ne boo ko xoolee sab xool sedd soo ko wanee ginnaaw sam xel dal nee na dara gënu ko ci àdduna moo tax bu ñuy jàng ci téere yi ku tedd ki ñu gis mu cay ñaan di santaane ñu cay ñaan ku mel noonu wa zawjatan saalihatan tuinu ala tuqaa wal birri yaa muinu ak wa zawjat wa zawjatan saluhat bi diini yallaahu kon ki nga xam ne mooy sa dëkkandoo di sa wéttal wa ca gën nag mooy wa nga xam ne day wu baax ànd ak yow di jaamu yàlla di jëfe ndigal di bàyyi tere sunu borom kooku ku ko am yaakaar nañ ca moom ne njaboot gu baax lay doon habli bi bi jaahihi waluudan munjiba talidu saalihan aliya martaba wal tajala wal tajalanha ya ilahi saaliha talidu man yaamalu baadi saaliha kon jigéen mën naa doon sa wayjur nga war ko fonk mën naa doon sab jigéen nga war koo fonk mën naa doon sa soxna nga war koo jàpp fonk waaye mën naa doon it sa doom nga war koo fonk ndax bu dee sa doom ku tedd ka nee na amul benn jullit bu yàlla jox ñaari doom yu jigéen nga fonk leen taxawu leen la lislaam santaane ca doom ju jigéen nga def ko nee na ñoom ñaar ñooñee bala ñoo tàggoog yow dañ lay tàbbal àjjana kon doom ju jigéen mën naa tàbbal way juram àjjana ma min muslimin lahu bintaani fa yuxsinu ilayhima ma saxibataahu aw saxibahuma illa wa adxalataahu aljanna kon gis nga doom bu jigéen nga taxawu ko ci na ko lislaam santaane balaa tàggoog yow dalay tàbbal àjjana kon ñi nga xam ne dañ doon topp ci jigéen ñi naa leen amu leen da ngeen a war a yewu te su ngeen wa uh, da ngeen war a yewu te su ngeen yewoo yewiku yewu ba noppi nag yewiku ndax tënk yi ñu leen tënk ñooñu xamuñu diine xamuñu ne diine bu dee ndey da koo teral bu dee jigéen da koo teral bu dee soxna da koo teral bu dee doom da koo jox cër kon mën ngaa jaamu yàlla te jaaree ko ci ñoom lislaam jox na jigéen ñi ñu am sañ-sañu lu ñu bëgg a jëf ci seen bopp te lislaam ba ñu ko ñu def loola ku leen bëgg may koo xam ne sax ànduñ ca bu leen neexee ñu gàntu ndaxte xadis nee na jigéen ju mos a dem kër balañ koo jox keneen nañ ko laaj ba mu wax la nekk ci moom bu dee gone gu musta dem kërit nañ ko tàggu bam joxe baatam al ayyimu tustamaru wala tunkaxul bikru xat xata tustadan kon gis nga ne jox nañ ko sañ-sañ ci boppam am na ku baayam mosa may borom kër mu gantu ba mu gàntoo nag ñëw ci ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam ne ko sama baay dama may ab jarabaatam wala mbokkam mu ko jege te ànduma ca mu ne ko yaa moom sa bopp sooca ca muy noona soo ca du mën a sotti mu ne ko léegi ànd naa ci ñu ne ko nooy waxee ne ànduma ci ba yàgg nga ne ànd naa ci mu ne dama bëggoon xam rek ndax jigéen sañ na ci boppam dara wala walakin aradtu an taalama nisaau an laysa lil abaai min al amri shay dama bëgg jigéen ñi xam ne am nañu sañ-sañ ci seen bopp kon loolu la lislaam jàngale kon gone gu jigéen kenn du wañ loxoom di ko dugal fu mu bëggutu dugg soo ko defee amaana doo ci am ndam kon nag ñi wax ne jigéen amuñu cër fekke na lislaam jox leen cër bu yàgg jigéen tam jox nañ ko cër bu tolloo ci xamlu dañ ko war a xamal ndaw dañu koy xamal dañ koy jàngal dañu koy yar moo tax ngën ji mbindéef daan jàngale te jàngale rek moo ko fi andi innama bu'istu mualliman amoon na bis boo xam ne da ko jagleloon jigéen ñi dafa am bis boo xam ne jigéen ñi la ko joxoon ñoom rek ñooy agsi ci moom mu di leen jàngal seen diine te xam ngeen ne ku baax ki nga xam ne moom moom la daan roy moom itam noonu la defoon amoon na bis yoo xam ne da koo jagleel góor ñi waaye amoon na bis yu mu jagleel jigéen ñi ñuy ñëw ci moom muy lijjanti seeni soxla di leen jàngal di leen ñaanal kon nag ku wax na lislaam dafa woyofal njàngum jigéen yow ya xamul te gis nañu sax ne lu bari ci nit ñi bu jigéen dee jàng ba tollu fenn fe rek dañ naan doy na jigéen moom na jàng liggéey te ñu maye ko waaye njàngum jigéen amul solo aha kay am solo ni mu waree góor rek noonu la ko waree wax nañ ne ku baax kii mos naa laaj nit ne ko ana sa doom ju juddu woon barab sàngam ci waxtu sàngam mu ne ko mi ngi fede bu doon góor dey mat naa dem ca daara ja mu ne ko bi muy jigéen nag daal ne ko ñoo bokk atte moo tax al imaamu Shafii nga xam ne fu ne dem na fa de sàkku xam-xam amoon na ci ay sëriñam koo xam ne jigéen la woon muy soxna Nafisatu bintul Xusayn al imaamul Buxaari nga xam ne fu ne dem na fa sàkku xam-xam wax nañ ne li ko jàngal ci ay soxna mat nañu juróom-ñetti fukk kon daana xamlu ci ay góor waaye daana sàkku xam-xam ci ay jigéen am na soxna suñu wax ummu shifa daana jàngal jigéen ñi nekk ci biir kër sayduna muhammad alayhi salaatu moo tax hisham ibn urwa nee na musumaa gis ku gën a dégg fiq wala xam-xamub faj wala xam-xamub way ku ko dàq soxna Aïcha nee na mosuma koo gis

أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول

dégg wala xam-xamu faj muy médecine wala chaar muy way ci soxna Aïchatu kon gis ngeen ne jigéen ñi naka jàkk xam nañu ne sàkku xam-xam day seen warteef ñu góor góorlu ca ba war na ca aw moom la sëriñ bi di wax ca téeréem kaw na wa kawnahu saadatu sibiyaani wa shiibi wa shubbaani wa niswaani kon sàkku xam-xam ñëpp la war loolu lislaam xam ibnu saad wax na ci téeréem ba at tabaqaat jëlee ci masruq mu ne wat naa ci yàlla ne gis naa magi quraysh di saxaaba yi ñuy ñëw ci soxna Aysatu di ko laaj ay masala ci miiraas te yàlla moo santaane woon loolu wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wa hikma kon ku yooyofal xam-xam bëgg koo eh, sikkalu lislaam danga xamul dara ci lislaam jigéen tam sañ naa daan dooleem ci kaw mu tënku ci njàngaleem lislaam ci doxiinam ci waxiinam ci nekkinam na tënku rek ci njàngaleem lislaam dafa am ci saxaaba yi koo xam ne yaayam ju ndaw dafa demoon tool di góob toolam mu tere ko ne ko jigéen du góob soxna sa dem ca sang ba sallallahu alayhi wa ko mu ne ko uxruji fa juddi naxlaki laallaki an tasaddaqi minhu aw tafaali xayra demal nga góobi sa tool soo góobee ba noppi def ca lu baax mooy génn ca asaka maye ca sàkk ca sarax waxaat ne usina la kunna fil xuruj li xawaaiji kunna am ngeen ndigal ci génn dox seeni soxla moo tax sunu mag ñi xamoon loolu fonkoon xam-xam fonkoon liggéey soxna astawaalo ku ne xam na ne siiw na ci fonk xam-xam soxna maymuna al kubra ak bokkam ku ne siiw na ku xam na ne siiw na ci sàkku xam-xam soxna faati silla faati silla ku xam na ne siiw na ci liggéey mook ñam bokkaloon daara jigéen sañ na jaayante ni góor ñi di jaayantee yaa ayuha nabiyu ida jaaka almuminaatu yubaayi'naka ala an laa yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awlaadahunna wala yatiina bi buhtaanin yaftariinahu bayna aydihinna wa arjulihin wala yacsiinaka fi macruufin fa baayi'uhunna kon sañ naa jaayante ni ko góor ñi di defee te bu ñu demee ci réew bi soowu jant xam nañ ne dañoo deltu ginnaaw lool ci wàllu googu jataay bi du ko mate te du ko laaj miraas jigéen am na ci wàllam te bu ñu gëstoo la jiitu lislaam dañ cee gannaawaloon jigéen lool lislaam na ñëw jox ko àqam ba mat sëkk am na anam yoo xam ne góor a koy ëppale am na anam yoo xam ne moo góor ñooy tolloole am na anam yoo xam ne nag sax mooy ëppale góor kon jox na ko cër boo xam ne ba lislaam ñëwagul musu ko woon a xalaat te am na ci réew yu soow jant ñuy sikkal lislaam ne dafa tuutal jigéen moo tax cëram du tolloo ak cërub góor te ñoom ña koy wax am na ci ñoo xam ne dañuy batale bu ñuy bëgg a faatu ne su ma dee sama alal ji nangam ak nangam këlbu bi moo ko moom këlbu sama këlbu bi ci kër gi moomam nangam moomam nangam ba noppi nag ne dañuy xeexal jigéen ndax mu am cëram am na nag taxawaay yoo xam ne jigéen da koo yàgg a taxaw ci lislaam am ci cër boo xam ne moom rek moo ko am góor sax amu ko mën nañ cee tudd rek yu néew ba ci jëkk moo di lislaam ji ba mu wàccee jigéen moo ci njëkk a tàbbi jigéen sañ naa taxaw yëkkati loxoom ne yàlla ba mu wàccee diine ji ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam man jigéen maa ci njëkk a tàbbi te mooy soxna Xadijatu ba muy gàddaaye ne ci xuntima nekk fa ak àndandoom ju tedd ja muy Seydina Abu Bakrin jigéen moo fa doon ñëw ca xuntima ma di leen fa fekk di leen jox la ñuy mos di leen jox xabaar ya nga xam ne bëgg nañ koo xam ca Makka te mooy soxna Asma bintu Abi Bakrin kon gis nga xat-xat ya ñu tolloon ak coono ya ak nattu ya bañ fa nekkee ke fa doon fekk euh, ba am lu ñuy xéewloo di am xabaar yuy tax ñu xam fu ñu teg seen tànk jigéen moo ko doon def ba ca tege moo di minbar bii nga xam ne ci ajjuma ji ci la imaam di yéeg jàkkal ak mbooloo mi di xutba jigéen a ko njëkk xalaat moo ku njëkk a liggéeylu jox ko hadiya sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moom dadaan daan rek ci daatu garab mu ne ko ala ajalu laka shay'an taqudu alayhi fa inna li gulaaman najjaaran am naa nguur soo xam ne ministre la xanaa duma defal loo xam ne ci ngay yéeg qaala in shi'ti mu ne ko bu la soobee fa amilatil minbar soxna sa defar minbar kon minbar bii ñuy yéeg bu neexee jigéen mu yëkkati loxoom ne maa ko njëkk a xalaat maa ko njëkk a liggéey def ko hadiya ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa muy law di law ba nëga fu imaam di xutba day taxaw ci kaw minbar kon nag ku ne jigéen amul cër wala dafa tuuti wala dañ koy tuutal xamoo dara ci taarixul islaam jigéen sañ naa taxaw yëkkati loxoom ne man jigéen maa njëkk a tuur sama deret ci lislaam soxna Sumayyatu way jur Ammar ibnu Yaasir xam ngeen ne moom la ñu njëkk a rey ci lislaam kon ñi tuur seen deret ci lislaam bu ñu leen doon seet ka jël nag way wa ne maa ko njëkk a def jigéen la kon jigéen sañ naa taxaw wax ne maa njëkk a tuur sama deret ci lislaam kaamil alquran bi ba ñu ko dajalee mu doon benn kaamil ñu bind ko muy kaamil bi jëkk ci àdduna ba ñu ko bindee ba noppi nag seet ku ñu koy dénk mu saytu ko sàmm ko euh, jigéen lañu ko dénk mooy soxana Xafsatu bintu Seydina Omar ibn al kon kaamil bi njëkk am ci àdduna jigéen lañu ko dénk moo ko doon sàmm moo ko doon saytu loola jigéen sañ naa yëkkati loo xam ne ndam la loo xam ne maa ko jëkk am euh, juma ji ñu nekk ci keppaaram ku ku baax ke ba mu ko santaanee tob bi ay sas santaane ne nañu joxe ñaar fukk ak juróom-ñett lañ ci njëkk a dajale ba mu dajo dajee di ab lim bu takku ku ñu wax soxna Awa Sarr bokkoon ci njabootu soxna Fatou moom la ko dénk lu mat ren ba déwén moo moom rek moo ko denc yoonu kenn néew ci loola taxawaay la boo xam ne jigéen taxaw na ko sémb bu rëy bi sunu kilifa gi sémb bi gis ngeen jigéen ñi dañoo tobbiwu sas mooy waañu la ci aju ñoom ñoo koy liggéey kon xam nañu seen warugar xam nañ seen taxawaay poroxaan soo fa demee daare maam jaara ja la fa nekk lépp daare maam jaara yi ay jigéen lañu la xasaayu ndax xam nañu seen wartéef xam nañ fa ñu teg seen tànk kon nag kuy wax ni jigéen amul cir da nga xamul dara ci taarixu lislaam xamoo dara ci yoon wi waaye cër biñ ci am benn cër féetuwu ko kaw yàlla nu yàlla sàmmal sunu kilifa gi guddal fana may ko wér ba lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale ci sago te ñu ànd koog moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله sa الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ومراده المتصرف كيف شاء في خلقه وعباده وخلق منهم من شاء وهداه إلى سلك سبيل رشاده فأعرض عن الدنيا وزخرفها لعلمه بنفاده وأقبل على آخرته وأكثر من الزاد ليوم معاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه الذي بنوره اشرق الكون في اغواره وانجاده اما بعد فيا ايها الناس خذوا القناعه من دنياكم وارضوا منها بالقليل ولا تشتغلوا بعمارتها والتنافس فيها فإنكم منها على رحيل فانتهوا رحمكم الله من سنة غفلتكم واستيغظوا من عظيم نومتكم وتزودوا فإن خير زاد التقوى واجتهدوا فيما يدخلكم الجنة وينجيكم من النار وذلكم باجتناب المعاصي ولزومكم التقوى وكثرة الأذكار قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الحمد لله الذي ألبس أتقياء عباده من عذابه أمنا وجعل عاقبة من أعرض عن عن عبادته هما وحزنا نشهد أنه الله الذي أسعد الإسلام برسوله وأقر للمسلمين عينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين نالوا بقربه سؤددا دائما وغنى وأصحابه الذين كانوا على نصرة الدين عونا أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال wa maa xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduun fanhaduu limaa xuliqtum lahu wa axsinuu camala wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun walaa yusxilannakum attakaasuru fi l amwaali wal awlaadi wa qassiruu amala فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إن الله قد حد لنا حدودا وجعل علينا حفظة وشهودا وبادروا بالتوبة النصوح من كل ذنب صغير أو كبير فامتثلوا قول مولانا اللطيف الخبير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم عاملنا بفضلك بما أنت أهله يا أرحم الراحمين ولا تواخذنا بما نحن أهله واغفر لنا ولعامة المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 سمع الله لمن حبنا لك الحمد الله أكبر الله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 الله أكبر الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.